am salaam salaam les amis de Oser Média ñu leen di ziar bu baax a baax di leen jógee bu wér a wér di am mbégte ba neex di àdde ci ngeen di teewlu di leen xamal ni tey actuellement ni euh, li ñuy wax ni nga xamante ni moo xew si Sénégal muy les élections présidentielles mu nekk ay chaînes de liège yoo xamante ni natt nañ ko di côté de Rufisque Kër Mbaye Fall Pikine Thiaroye Diamaguène euh, Dakar partout au Sénégal ñu nga xamante ni moom mooy victoire bi nga xamante ni moom a yaakaar ni mu war a am ci diggante ki nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye ak Amadou Ba te moom mooy résultat yi ngeen waaye li mu am yéen mooy li nga xamante ni dafa favorable ak candidat bi nga xamante ni candidat Bassirou Diomaye Faye moo tax ñu ngi euh, célébré dans les rues de Dakar mu war leen tuuti image rek dans les rues de Dakar yi nga xamante ni daal am na fi ci ay euh, li nga xamante ni mooy jubilé Oser Média nag c'est une chaîne boo xamante ni presque affaire de politique moom duñ ci sax laal lu bëri bëri mais comme ni dafa nekk loo xamante ni lu xew la ki nga xamante ni moom la fal mu ñëw war nekk ki xamante ni na ñëw nekk moom la Sénégalais yi doon xaar et mu changé lu ci réew mi mbokk yi jërë ngeen jëf